dalalaat si euh, émission Petit Déj. waaw Safietou maa ngi lay fay. Euh, mhm. euh, di nuyu Badiane. Mhm. comme que waa Pikine ñu nit waa Pikine lañu defe naa. Mhm. mais nag aussi Gomis. ak man ay jaman yu mag lañu. ñoo bokk lépp. <laughs> donc defe naa ni am naa fu ma far déjà. <laughs> Safietou merci beaucoup di nuyu ñi seetaan ñëpp. di yaakaar ni waxtaan bi dañ fi dañ leen amal njariñ. di nuyu particulièrement liggéeykatu Sénégal yëpp. particulièrement les syndicalistes te nag rentrée scolaire la ñu ngi bàyyi xel aussi ci parents d'élèves yëpp mhm. ci coono yi nekk ak xale yi tamit fitna yi ñu àndal mhm. ñaan yàlla rek yàlla sotta ko jàmm ak salaam mhm. donc di nuyu waawal fajiri yëpp mënu ma nag euh, ba ñàkk beral nuyoo Bap Ablaye bopp sama jaam boobu nga xam ni dimanche bu nekk moom ak di jeexal ñu ngi sama kaw. mais nag tey jii du ma am occasion fayul. mais maa ngi leen nuyu au passage. d'accord donc euh, ñu ngi lay euh, nuyu di la dalal waaye tamit dañuy dalal dañuy nuyu ñi nga xamante ne ñoom lañ si àndal ku si mel ni ajaratu Penda Diallo Gueye ak ñoom euh, bintu Fall ñoom Keba Thiam ak kii di Louis Joseph Faye ak tonton Pierre Sisson bi ñu dem nag jëli gi suñu rubrique éco entreprise dellu si alors euh, comme niñ leen ko waxee woon rek dañuy dem jëli ji suñu rubrique éco entreprise éco entreprise di dalal tey euh, kii di euh, Mballo Dia Thiam waaye nag ku ne éco entreprise ni liggéeykat yi comme Mballo ni mu ko waxee léegi ñu ko rek ñi nga xamante ne ñooy dem sa l'école ba te tey ji nga xamante ne ñii di professeurs yi ñoom ubbi wala enseignants yi ñoom ubbi woon nañ depuis jeudi passé waaye tey ji nag mooy rentrée des des classes pour les enfants ñi nga xamante wuñ wala kii woon euh, xam nañ ko ndaxte euh, lii di euh, embouteillage yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko mu mel ni xale yi moom bu ñu xewlee boo amee sa soxla da ngay toog xaar lañ ba ñu jàll ñu dem nag jëli benn élément boo xamante ne kii di mbay Sarr di secretaire général bu SADEF def na ko yëkkati rek ay kàddu jëmee ko ci ouverture des classes boobee. Après la rentrée du personnel enseignant le 3 octobre dernier, c'est aujourd'hui celle des élèves. Mais nous constatons déjà, malheureusement, que cette rentrée se fait à plusieurs vitesses à cause d'un certain nombre de facteurs bloquants. D'abord, les élèves dont les écoles sont encore occupées par les eaux ne pourront pas vivre une rentrée effective. Ensuite, les élèves qui doivent entrer dans les abris provisoires non encore confectionnés vont devoir, malgré eux, prolonger leurs vacances. Ce qui, encore une fois, pose la question de l'inéquité dans le traitement des élèves dans notre C'est pourquoi il urge d'éliminer les abris provisoires qui ne le développement de l'enfant. Si nous voulons obtenir la réussite des élèves dans notre pays, il nous faut garantir de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage avec bien entendu la satisfaction d'un certain nombre de préoccupations, dont notamment le déficit du personnel enseignant, le déficit des tables bancs, la lancinante question des enseignants décisionnaires, la retraite à 65 la formation diplômante des contractuels, des chargés de cours et des instituteurs diplômés qui réclament leur mise en position de ça à la FASTEF. Si nous arrivons à régler toutes ces questions, nous pouvons espérer vivre une année scolaire stable. Sinon, elle risque d'être instable comme celle des années précédentes. déggee noonu mu nekk Mbaye Sarr di euh, secrétaire général bu SADEF alors euh, Mballo Dia Thiam am euh, si santé bi nga nekk waaye tey ji nag école moom moo tijji te tamit syndicaliste nga au delà du fait que nga nekk parent d'élève mais syndicaliste nga ndaxte bokk na si li ñuy ñaxtu mooy 157 écoles yi nga xamante ne établissement yi nga xamante ne si jamono ji ba léegi dañoo nekk si ndox mi mbënd mi dalee naa waaye tamit ñu yëkkati problème yu si mel ni problème des des enseignants décisionnaires et, et puis des enseignants également mis en position de stage depuis boobu ba léegi mu nekk jafe-jafe yoo xamante ne ñii di Mbaye Sarr ak yeneen syndicalistes yi ñu ngi ko yëkkati te boobu ba léegi amuñu ci saafara. waaw loolu dinaa sawar tontu ci bu baax a baax parce que d'abord Mbaye Sarr maa koy nuyu di ko gërëm. Mhm. fan yii passé envoyé na mu benn message de félicitation. Mhm. ci titre boobu nga annoncé sànq. Mhm. Euh, Mbaye Sarr euh, ànd nañu ñaamee a moins esclavage parce que benn atelier bu bu kii organisé woon euh, euh, l'organisation le bureau international du travail. Mhm. parce que ces question la am na ba léegi ci suñu frontières yi diggante Mali ak Niger. Mhm. l'esclavage ci boppam. donc moom tamit ñeewu xare la mbay Sarr problème yi mu wax nag ay problème yu sérieux la. Mhm. parce que liñ naan euh, donc égalité. ak équité dafa war a am solo. Mhm. parce que doomu mu warul xëy di jàngi yow sa doom bañ a xëy jàngi. Mhm. pourquoi parce que école bi dafa am ndox. donc war nañu fexe ba bërëb yooyu tout comme aussi am na yenn passe de santé aussi yu nekk ci ndox mi. war nañu fexe ba anticiper si loolu. Mhm. et puis école du bés bu école di tijji rek la ci war li ñu war a jóg. je pense que ci vacances yi. lañu ñu war a séntu loolu surtout école bu yàgg inondé mhm. donc bay dix ans loolu dafa dafa jaaduwul war nañu fexe ba bu inondé benn yoon benn année bi au moins du inondé mhm. mais élèves yi di jàng ñii di ñu jàng mënul nekk kaaw décisionnaire yi aussi donc loolu tamit il faut que ñu wax ci parce que mhm. en tant que secrétaire général aussi de la FGTSB ñun posé nañu problème mu décisionnaire yi parce que mënoo nit ki nekk dans une situation de décisionnaire ba kañ et puis. Euh, leeralal ñu euh, euh, un enseignant mis en les enseignants décisionnaires lan mooy seen statut. boo c'est que xam nga catégorie xam nga fonction publique dafa am ñu naan ay fonctionnaires. Mhm. am ñu naan ay décisionnaires. Mhm. mais bu fekkee ne ñoom seen wàll boobu dañuy yéex a dugg fonction publique. Mhm. dañu nekk ay décisionnaires. bu ñu nekk ay décisionnaires daf leen di handicapé ci seen avancement ak yëpp parce que du ñu mën a avancer comme les fonctionnaires. à tel enseigne aussi dafay impacter seen retraite parce que bis bu ñu leen qualifié moo tax ñu indi la que bu njëkk ba xam nga dañ naan euh, fonctionnaire mooy ku nga xam ni. amagul trente ans. Mhm. donc ku am vingt neuf ans mooy nekk fonctionnaire. mais boo nekkee trente ans da ngay nekk décisionnaire. d'accord yow ak euh, par exemple suma camarade supporter bi mun ngeen génnandoo benn école. Mhm. yow nga nekk première de la classe. Mhm. mais nga am trente ans. moom mu nekk peut-être dernier de la classe wala au milieu. am 29 ans moom day nekk fonctionnaire yow mi nekk jiitu ci classe bi yow nga nekk décisionnaire loolu xam nga jaatuwul. impact bi mooy lan mooy yow en tant que fonctionnaire. yow di nga cotiser plus pour la retraite à la retraite nga am pension bu gën moom eh, décisionnaire bi day cotiser moins et à la retraite il perçoit moins te danoon nekk tous les trois mois avec euh, l'IPRES euh, en changement yi lañ ko mensualiser mais mensualiser bi si du dara par exemple boo waroon am 30 000 par mois ñu diviser ko par 3 mu nekk 10 000 francs par mois mhm. Mhm. loolu donc la amul leneen donc il faut que ñu loolu ñun aussi da woon nañu état waxuñu sax comme que yow yow yaa am sa système de retraite am aussi IPRES aussi nekk lu nga xam ni sa kër la nekk. mais lu tax décisionnaire yi nga xam ni yaa ngi leen di fayal beneen système pourquoi mënoo leen dugal FNR parce que problème d'âge boobu rek moo doon loolu. FNR mooy lan. fonds national de retraite mooy fii fonctionnaire yi di di mhm. émarger retraite ñu ñu fayeeku et li ci am solo aussi ci FNR boobule mooy bu fekkee ni aussi dafa dépendre ci taux de cotisation yi cotisation yi lu mu gën a bari mhm. parce que dans le temps defoon nañu étude boobu waxoon nañ ko que ñeent nit ñooy liggéey pour di ko diseel euh, benn nit bu nekk à la retraite. Mhm. c'est-à-dire la retraite euh, répond à ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. mooy ñu nekk en activité. Mhm. ñooy cotiser ñu nekk en inactivité. yow boo dee cotiser gomis. Mhm. mais bu gomis retraité yow boo retraité ñoom ñu doon gomis dañu lay war a cotiser. dafa am ay ratio aussi par rapport à ça. bu ñu demee ba 4 di cotiser pour benn. jékki-jékki ba 3 di cotiser pour benn ba finalement 1. virgule cinq pour un xam nga le rapport est presque nul. d'accord donc y a ces problèmes là. xam naa ne moo tax euh, ñu foofu. très bien xam naa ne dinañ si ñëwaat ak euh, syndicat d'enseignants yi waaye hmm. déjà yow euh, vous avez déjà annoncé la couleur et xam naa ne dinañ si ñëwaat ndaxte ñu ngi soog a door lii di année scolaire bi et que bii passé rek invité nañ fi Cheikh Tidiane sa waa COSYDEP ñu waxtaanee tamit lu ni mel alors ñu ñëw nag si Mballo Dia Thiam ak And Gueusseum alors Mballo balaa ñuy dugg si And Gueusseum ak yooyu. est-ce que mën nga ñu defal l'état des lieux de la santé au Sénégal. bon état des lieux santé. du Sénégal du système sanitaire mën nañu wax ni bon. Euh, dafa nekk un système buy évoluer en dents de scie mhm. maanaam dafay yëg ba ci kaw en si moitié ci suuf mhm. bon loolu aussi dafa nekk fonction de beaucoup de choses parce que santé ci boppam waxuma feebar parce que fii dañu confondre santé ak mhm. maladie or bu fekkee ni santé bi dafa am défaillance ci la maladie bi di ñëw maintenant tant qu'il y aura des malades effectivement dina am ay structures yu yu leen di faj mooy disons le curatif mais li gën mooy ñu fexe ba nit ki du feebar loolu mooy le question de santé faire en sorte qu'il n'y pas de malade ou moins de malade ou moins de malade grave loolu mooy le challenge moo tax suñu combat bi yëpp mooy une santé plus préventive que curative parce que du ñu am toujours on n'aura jamais assez d'argent pour mettre dans le curatif ñu bëree bëree bëri xaalis bu ñu leen di fay fayee nit du ko mais bu ñu fexee par exemple dialyse un un patent parce que tey ji actualité bi wax nañu affaire u dialyse hôpitalu mais li gën mooy ñu fexe ba nit ki ci boppam wàññi xorom wàññi suukar wàññi lépp lu nga xam ni mooy tax mu am insuffisance rénale mhm. maanaam bañu am hypertension bañu am diabète tant que hypertendu yaa ngi fi diabétique yaa ngi fi dañu nekk ci kër antichambre kii insuffisance rénale chronique. Mhm. donc loo jënd ci ay machine aussi tant que en amont réglé woo question boobu la. Mhm. réglé wuloo dara. Mhm. moo tax loolu mooy suñu combat de tous les jours. moo taxoon ñu xeexoon eh, pour ñu am une régionale de la santé. parce que au lieu que ñu ne région médicale di wàññi feeb di wàññi wàññi feebar yi benn ñaar ñetti ñeent mais nañu fexe ba feebar yi du ñu ñëw mais du tere aussi direction régionale de santé dina fonctionner comme un cabinet ministériel mais au niveau comme miniature dans la région mm-hmm. mais pyramide sanitaire bi mu ngi fii d'accord case de santé poste de santé centre de santé hôpital niveau 1 niveau 2 niveau 3 ba niveau x mm-hmm. bu boobaa ñu xam ne xëy ni pyramide baa ngi fi mais système de santé baa ngi fi amee comme que nit ñi dañuy yokk at mu nekk mais besoin santé yi dañuy dañuy yokk parce que dañuy soxla aussi ay infrastructures sanitaires. bon yu ndaw yu nekk digg dému ak yi gën a kawe. Mhm. mais infrastructure yooyu aussi donc donc dañoo xaw a léegi balaa ñoo ñëw si manquement yooyu sànq yaa ngi wax hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane nga xamante ne si jamono ji euh, je crois que c'est la Khadara Tijadia ñoom ñoo indi matériel yeeg yooyu noonu yëpp ba war a tabax foofu benn centre pour jalis euh, et que ministre bi rek la ñuy xaar pour que mu def benn signature am euh, pour que ñu amal boobee centre naka nga gisee lu nu mel yéexte boobee nga xamante ne nemmeeku nañ ko si. loolu jaaduwul parce que d ministère de la santé moo war a am ci ay budget. Mm-hmm. mu prévoir par rapport ak nombre dialyse yi am parce que loolu aussi dafay décentraliser parce que bu njëkk ba ñëpp daan teg leen doon ñëw finalement ñu commencé di ko décentraliser évidemment il y des efforts qui ont été faits mais moom bu loolu amee bu nit ñi aussi yow boo war a jënd machine indi ay spécialiste teg fa mais mënoo fexe ba autoriser autorisation donc pour ñu installer xam nga loolu problème bu bu dee noonu la demee problème bu bu sérieux la bon d' plus que ku am donc insuffisance du ko man def attel en cinq muy def ñaari séance au moins dans la semaine bu ko defulee donc day wala wala day day day d'accord ba tey mu nekk un problème très très sérieux mais nag en dehors même de cette installation là mais la question là dafa gën a chronique parce que les spécialistes même dafa bariwul parce que on n'a pas assez de néphrologues sachez et de surcroît waroon nañu am ay techniciens supérieurs en néphrologie pour que bu fa nekk néphrologue ça pose problème. daaw la ñu commencé di rattraper wu pour fonction pour former en technicien supérieur. en anesthésie réanimation. en radiologie. ak uh-huh. yeneen ak yeneen. au nom de quoi un pays bu nga xam ni depuis. avant uh-huh. l'indépendance on a eu la première université. Uh-huh. tous les cadres africains là yi yi yi jàngale ci école yooyu. ñoom ñëpp fi la ñu soqee ko. ba ñu am un déficit criard de médecins. ah médecins yi matuñu ah, dans la fonction publique. alors que boo demee Maroc Tunisie tout ça la gis gën a bëri leen formé mhm. ñoo am ay plateau yu am solo mhm. ñun ñu tumuranke ay plateau technique mhm. donc voilà en quelque sorte la photographie loolu laa la doon bëgg a wax que c'est une euh, bonne transition pour parler des manquements ak euh, mooy manquement en personnel qualifié ak en infrastructure sanitaire waaw justement parce que par exemple bu ñu nee plateau technique euh, dañu ni d'abord infrastructure bi dafa war a nekk aux mais ama infrastructure bu inondé tout le temps nekkul aux mhm. ensuite infrastructure bi si boppam mooy bâtiment yu mel dafa war a am équipement yi mhm. équipement yi bu ñuy tabax bu ñuy tabax hôpital bi ci la ñu war a concevoir les équipements yi war a am mhm. parce que nekkul comme une salle de classe booy tabax def quatre murs def tableau ñu di say écran si mais hôpital am na ay appareils yoo xam ne bu ñuy tabax hôpital bi lañ leen di concevoir donc la la question des équipements mais équipement yi aussi dama seet parce que équipement yi technologie a avancé am benn appareil mu cher lool lool loolu gannaaw suba wala dans un an mu am beneen bu ko gën a cher bu ko gën a cher mais mu ko gën a fiable. Mhm. te fiabilité bi moo ci am solo. donc y' a problème là mooy dialyse li ñu wax yëpp y' a beaucoup d' appareils a des appareils aussi qui sont en panne. Mhm. ça interroge la question de la maintenance. Mhm. moo tax ñu ne ministère de la santé nañu ériger école Diourbel bi en école d' ingénieur en maintenance hospitalière. par exemple la maintenance hospitalière parce que même les équipements là tensiomètre bi bu nekkul aux normes bu ñu la jëlee tension boo xam ni baaxul. c'est comme aussi les autres appareils de biologie mën nañ lay jox ay chiffres yu baaxul mhm. donc maintenance dañ ko war a et puis li ma si métti sax mooy ñu ne africain mhm. baatu maintenance amu ci benn kàllaama africain loolu moom def naa ni gumis war nga ci mën a gëstu mhm. euh, amu ci donc finalement les maintenanciers bariwuñu école ba fa nekk allemand yi ñoo ñu ko mayoon vers les années 70 introduit maintenance de Diourbel ñun ñoo xeex pour que sax la les promotions la ñu def leen ay fonctionnaires ñun SUTSAS ñoo ko def. Mhm. ba léegi amul école d' ingénieur te pourtant on parle d' ingénieurs biomédicaux actuellement nii. Mhm. mu nuyuwaale donc euh, l' actuelle directrice de la JEP. Mhm. donc ingénieur biomédical la tout comme Amad mi ko remplacé. mais dañ leen di compter comme ça ci ay ay ay loxo. dans un pays comme ça maintenance bi bon naa maintenant maintenant les ressources humaines. wax naa léegi les spécialistes boo amul ay néphrologue yu bëri. au moins nga am ay techniciens supérieurs en néphro. mais amul presque pas. y a des centres xam dinañ ubbi mais dañ am mais kenn lañ am au lieu que ñu mën a def au moins trente ou quarante malades par jour dañuy def presque le quart ou bien ou le tiers. parce que y a pas assez de gens ou bien la même personne ngay gis muy tourner tourner tourner. comme aussi les gynécologues là. bi naan benn gynécologue ñaari gynécologue mais xam nga ni dans un hôpital war nañu am au moins six à sept gynécologue mm-hmm. bu ñuy di opérer ñi dem ay consultation ñii bu ñu demee congé ñii nekk ci leneen mm-hmm. mais kenn nit rek même bu dee chirurgien bu absenté fanaana a opéré ba bët set mu war a yow xanaa am war na mën a teewlu ci boppam mm-hmm. mais mu war a ko niwaat à chaque fois urgence ñu ngi ñëw donc il y a un déficit criard en spécialiste loolu dafa nekk lu doy waar on a beau crier mais état aussi et et la cause bah, quelque part c'est un que boo xoolee le budget de la bu fekkee ne ne ça tourne autour de 6 pour cent mm-hmm. cent quarante quatre et quelques milliards nga jël 6 pour cent jox ko santé mm-hmm. donc donc sur sur un de 3000 et quelques nga jël donc lu meloon noonu. jox ko santé kon 6 pour cent ngeen di ci budget. 6 pour cent moo fi nekk alors que OMS dafa ni woon pour cent. Mm-hmm. Euh, son excellence Ablaye Wade bu mu nekkee président de la République en ñoom ñu dem à Abuja avec tous les présidents africains là. Mhm. ñu ne xeeb nañu pour cent yi parce que bu ko OMS waxee dafa nekk lu nga xam ne mënul ñàkk. Mhm. donc war nañ dem ba 15 pour cent. Mhm. ñoom ñoo jël engagement daañu dañu yóbbu budget à 15 pour cent. mais pour cent nga war a am nga wax ko. alors que 9 pour cent yi sax mënoo ko jege nga nekk ay 6 pour cent donc ça pose problème. ça mm-hmm. signifie que allocation yooyu moo mun a tax ñu mën a faj nit ñi mën a tax ñu def ay investissement yu mel noonu. Mm-hmm. Eh, tey jii eh, gis ngeen euh, suñu préavis de grève bi ñu. war a posé est-ce que loolu moom moo waral tey jii seen seen préavis de grève boobu. mais loolu aussi man na parce que munoo gomis yow fonction publique moo war a recruter personnel yóbbu ko dans les structures. Mm-hmm. fonction publique defu ko. là on recrute 3000 gendarmes policiers on a rien a on n'est pas contre parce que notre sécurité aussi compte. Mhm. mais ñaata infirmiers la ñuy la ñuy la ñuy la mhm. te aujourd'hui sax presque la plupart léegi ne sont pas formés dans des écoles publiques. parce que mhm. un des c'est presque formé tout. toog na ay années. c'est les écoles privées qui nous forment nos agents. te ba pare dañu am ay contrat fonction publique jëlu donc mu poser d'abord nga xam ni. fonction publique recruté ñu ne ministère la santé dañ lay jox benn ligne de crédit pour que nga def ay contractualisation. Mhm. mais Gomis aussi légaliste nga. le contrat de code du travail loi la moo ni contrat benn yoon nga koy renouveler. Mhm. boo ko waree renouveler ñaari yoon boo ko waree renouveler ñetti yoon day def un contrat durée indéterminée. donc da ngay gis ñooñu dañu am mhm. ay dix yu toog yoo xam état moo leen ko defal. mu nekk état di violer donc ses propres mais bu ñu demee ba aussi partenaires yi comme JK wala ISMEA ISMEA mooy investir euh, sur sur la santé de la mère de l' enfant et de l' adolescent mooy ISMEA. Mhm. ñoom ñoo ñu jël presque trois mille et quelques agents pour ñu renforcer système bi pour ñu relever indicateurs yi JK aussi c' est avec les japonais. Mhm. bu ñu la defoon loolu yow mu ngi mën a góorgóorlu mais yow nga fexe ba. anne bi ci boppam dañu ni ligne bi ñu leen doon fayee salaire yi contractuel yi ligne bi jeex na mois d' août donc ça signifie que fu nekk nii mois bi septembre bi xale yi du ñu fayeeku. mois de fin septembre bi. octobre novembre décembre en est-ce que mën nañ toog ba léegi ñu ne xaalis ba jeex na am lu ñu leen leen fayee moo tax ñu ne nag code du travail moo nii soo toogee ba léegi fay ñu la mën nga croiser say loxo mën nga bañ a liggéey. Mhm. te wuti liggéey te loi dara du la ci fekk léegi nag moo tax ñu ne ñu bëgg a def ñun suñu sitting bii mhm. eh, le le 10. Mhm. parce que may toog nañ ci ñaari fan mais le onze danañ déposer. un préavis de grève le sitting national def un préavis de grève parce que mënuñu d'accord non seulement dañoo war a fay xale yi ça c'est un dañoo war a fay mais dañoo war aussi sécuriser ba mois de décembre loolu aussi Safiatou euh, mhm. dal na aussi waa ISMEA mhm. ISMEA c'était pour trois ans yoo xam ni ñu ngi leen di jàppale partenaire bi mhm. américain léegi ñu ne ñoom ba octobre la ñu arrêté donc novembre décembre gouvernement Sénégal moo ko nar a fay mais weer yële passé gouvernement bi nee leen man mun moo fay novembre ak décembre. Hmm. léegi ISMEA ñëw obligé seet seet seet seen bopp daal di dugal huit cent million maanaam quatre cent millions par mois pour pour ñooñu te aussi normalement aussi ñooñu dañu waroon dugal fonction publique. parce que hmm. loolu mooy perspective bi. Hmm. mais maintenant jaaxle est-ce que ñëwul état bi ñu def loolu. partenaire bi ci boppam moom moo dolli. lan moo tax état mu ne du def loolu. ah mu ne amu mu amu ko. mu ne amul xaalis amu ko mënu ko waaw. amu ko mënu ko ISMEA moom moo ñëw danañu signé loo xale yi ay avenant parce que octobre bi la jeexoon pour que ñu mën a. ban état moo leen ko wax état. état du Sénégal ah. en fait je demande c' est quel magistère. Oh. Euh, magistère Macky Sall la wala magistère. bu Diomaye non non c' est l' état c' est l' état une. continuité. mais hmm. dama bëgg xam genre booba ban ban magistère la tombé loon ñi nga xamante ñoom ñoo la ne amuñu xaalis ban magistère la tombé loon. mais mais bien ñi. Hmm, hmm. ñi loolu yàggul moo tax durée bi rek laa bëggoon xam. non bu ñu nee octobre mënuñu fay octobre octobre. mënuñu fay novembre décembre. Mhm. mooy ñi fi nekk ñoo ni mënuñu fay novembre décembre. c'est l'actuelle équipe gouvernementale. Mhm. moo ni mënuñu fay loolu. d'accord mais finalement ISMEA a rallongé de huit cent millions. Mhm. pour que ñu fay ces quatre cent millions par mois pour l'ensemble de ces travailleurs. mais perspective yi moo doon après ñu dugal leen fonction publique. maintenant léegi kañ lañ leen dugal fonction publique vingt cinq Euh, donc assemblée nationale xëy na gise boobu dina mën a taxaw. Mhm. installé wu. Mhm. ba voté loolu même pour les fonctionnaires yi ñu war a recruter déwén ci lañ leen di fay. Mhm. loolu aussi mu nekk ay lendemain yoo xam ne nii. yoo xam ni dafa ku ci titre aussi war nga mën a mën a jaaxle. d'accord ci affaire boobu. donc la question. Mballo man dama am foofu benn inquiétude mooy ñi nga xamante ne euh, état da leen di yoreel contrat mais contrat bi day à chaque fois au lieu mu defal leen ay CDD wala kii mais day mën na leen defal six euh, CDD wala wala dix CDD comme vous venez de le dire est-ce que ñooñu mën nañ topp état du Sénégal. si mën nañ topp état du Sénégal. Mhm. mën nañ ko yóbbu mais xam nga agent bi ci boppam moom mooy mhm. que fi mu nekk nii. même boo bokkee syndicat fii si si kër gi fii yow boo amee conflit mhm. si sa si sa si sa contrat de travail mhm. yow yaa ko kilifa gi yéen a seen contrat mhm. yéen ñaar yéen yor contrat bi benn bi ñu jox ko inspection du travail donc yow yaa war a mun a porter plainte daal ni man de ci conditions yi lañ ma recruter def naa benn def naa ñaari contrat warul am ñetti contrat mhm. mais état si boppam mënul warul mën def contrat à durée indéterminée mhm. l' état contrat à indéterminée mooy mu dogal la fonction publique mhm. li c' est une manière simplement de d' du personnel pour mën a occuper euh, les postes de santé les centres de santé ak yenn système c' est pour par simplement parer ce déficit de personnel là moo tax mu am contractualisation et ça a commencé avec euh, Maître Wade mais sinon avance cela da ngay nekk fonctionnaire wala nga nekk décisionnaire te le bénévolat était prescrit donc bu ñu demee ba état bi di wax ay contractualisation moo tax danga gis ñuy xeex pour ñu jéem a euh, jéem a dajale les années de contractualisation pour ñu bonifier wu. bonifier ko ça mhm. c'est un. Mhm. mais maintenant contractualisation mhm. aussi dafa nekk lu nga xam ni lu doy waar la parce que munoo yàq say morom nga nekk fii chaque mois nga nga ndax di nga fay ko wala du nga fay ko mu nekk dans cette précarité là l'état doit recruter mu am solo ci moom d'accord mu mel ni euh, li nga wax am na solo waaye dañuy dem rek euh, seeti ji beneen euh, ponk muy li nga xamante ne moo di dégradation de la note du Sénégal par Moody's un mal pour un bien mu nekk ab jàngat boo xamante ne kii di économiste bi di Magaye Gaye di économiste international amal na ko bu fekkee ne yemb na Bintu Fall ñu dem jëli ji boobe jàngat. waaw wàññi gi ñu wàññi euh, notu Sénégal ci euh, agence de notation yi jeexital bi njëkk a mën a am mooy euh, ndàmpaay bi Sénégal daan teg ci wàllu boor bi mu daan dem di jëli bitim réew mu xaw a ëpp tuuti mais nag du te Sénégal mën a dem jëli xaalis bi mu daan jëlee ni mu ko daan jëlee ci marché yi notamment marché yi nga xam ne ñoo nekk Afrique sou sowu jant ndax xam ngeen ni euh, tey jii ñu bari dañu am xaalis boo xam ne entreprise yëpp yoo xam ne dañ ko bëgg a placé te Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoom ñooy ñaari réew yi nga xam ni fa lañ daan gën a jëm ndax euh, xam nga am na ñetti réew Mali Niger ak Burkina yoo xam nii daanaka mënatuñoo accéder ci marché wala dañ ciy accéder difficilement avantage marché financier sous régional bi nag ndax day permettre contrairement ay euro bon yooyu ñuy wax nga am ay taux yu baax ba pare doo am lu ñu risque de change mooy su dollar yéegee wala mu wàcce autorité nag mesure yi ñu jël nag muy jéem a euh, wàññi ni état bi di dundee ak euh, ni nga xam ni euh, euh, moom la ñuy tàmbalee négocier ak contrat yi fi nekk ngir gën a am ay jeexital yu bees ci finance publique yi waaye fàttewu ma tamit pétrole ak gaz bi nga xam ni moom la ñu sunu borom dénk man dama yaakaar yooyu yëpp doon na da ak soo ko boolee ak wàññi bi ñu bëgg a wàññi ni état bi di dundee dana tax ba ñu mën a am marché budgétaire léegi nag il va falloir que ñu compléter loolu par benn plaidoyer maanaam ànd ñun juróom-ñetti réew yi nga xam ñoo nekk Afrique soo communauté internationale ni leen nag suñu bor doonatul bor boo xam ni mën na euh, taxaw ndax euh, bor boo xam ni bari na diis na cher na euh, ndax waxtaan ak ñoom ndax ay nit kese ni ñun su ko defee bu boobaa yaakaar naa ni incha allahu rabbi ñoom danañ ci dugal seen loxo ñu déparé sur une nouvelle base loolu laa tuddee un plan de restructuration budgétaire et économique jërëjëf. d' accord mu mel ni leer na Alioune Sow ñu ngi lay nuyu d' très rapidement rek euh, suivre nga note bu euh, Modis bi euh, non pas spécialement mais mhm. certainement on se se penchera tout à l'heure là-dessus. certainement c'est en fait élément bi moom lañ doon jàllale noonu. non je kon xam naa euh, nu mu tuddati café bi la yàkkamte woon moom Alioune Sow. Euh, ñu bàyyi Mballo euh, Diatia mu nekk not bi nga xamante ne Moody's moom la jox état bu Sénégal léegi nag xam naa ne dinañ si ñëwaat gën si yaatal si rédaction bi ak tamit suñu yeneen xibaar ñu dellu si rek si suñu ganup bi lépp invité di Mballo. Euh, Dia Thiam euh, ne ànd gësëm alors euh, Mballo tey ji attentes yi lan la. waaw attentes yi d' abord mooy ñu wax ñu orientation système bi fan la. Mhm. parce que fu mu nekk nii programme national développement santé sociale PNDSS. Mhm. moom moo articulé woon si PSE. ci moom lañu doon liggéey. Mhm. nouvelle autorité yi fu mu nekk nii am nañu yeneen orientation am. mais xamuñu ko. mais pour le moment ñu ngi liggéey ci loolu. mais en attendant loolu ñun en tant que syndicaliste am na problème yoo xam ni loolu yu ñor la. parce que du ñoom ñoo koy lijjantee noonu. muy lan ah mooy d' yi ñuy wax nii parce que contractuel yi non seulement seen sort war nañ ko wax contractuel dafa am fu mu war a mën a yem. Mm-hmm. il faut que ñu wax daw la ñu war a nekkee parce que à part les partenaires là dañ leen war a dugal fonction publique loolu mooy l' engagement. Mm-hmm. mais nañ leen fay seen weer yi garanti leen seen weer yi di ñëw. Mm-hmm. mais en attendant aussi la motivation nationale. fin septembre waroon nañu fay ba léegi fayuñu donc mhm. loolu bokk na ci mbir mi. li ci des aussi xam ngeen ni bi ñu premier ministre Amadou Ba woowee le 7 mars de dafa demandé woon une trêve parce que on était à And Gueusseum à onze plans d' action. c'était du vivant de Sidya Ndiaye yàlla na ko yàlla dolli yërmande euh, ba tax na nag ñu defoon trêve boobu mais ba tax. parce que trêve boobu c'était pour que mairie yi les collectivités daal di recenser personnel bi éligible ci augmentation yi mhm. donc loolu fayuñu leen ba léegi ñetti ministres succédé wu nañu foofu euh, mooy Mamadou Talla Fada Diagne ak ki fi nekk léegi waaye ki fi nekk léegi waxul sax waxul li ñële waxoon parce que ñële sax ne woon nañu yaa 4200 qui étaient éligibles finalement ñu ne 4800 la mais waxoon nañu ni y avait milliards bu ñu dugaloon ci budget pour ñu fay noonu mhm. mais mille mille trente sept la ñu war a fay si ñoom parce que ñoom ñoo nekk ay fonctionnaires alors que euh, mise en œuvre fonction publique locale amagul c' est pas tellement effectif c' est pas tellement effectif parce que man ak Sidiya Ndiaye Sidiya Ndiaye point de revendication boobu la indiwoon woon parce que la loi là dañ ko voté en 2011 mu war a jox personnel boobu ñu am statut comme fonctionnaire d' état donc l' article 29 wax ni aussi lu fonctionnaire d' état am ñoom dañ ko war a am mm-hmm. mais yaa xeeti ba léegi loolu mënul nekk mais bu ñu xaymaa ci ban xayma lañ xam ay problème bi nekkul ci ay statut fonctionnaire ou décisionnaire. Mhm. problème bi mooy dañoo leen war a yokkal seen i payeur comme ni ñu yokkalee travailleurs yi. mu nekk beneen attente. Mhm. li ci des nag mooy la question du recrutement. Euh, ak yeneen corps yi nga xam ni am nañ ay passerelles yi ñu war a jàll jàllaguñ ko les aides sociaux les assistants infirmiers. Mhm. bon ak ñeneen yi nga xam ne xëy ni les assistants dentaires. maintenant il y a deux corps xam ni. Euh, mooy le corps des conseils en en travail social. Mm-hmm. ak celui des des conseils en santé communautaire. Mm-hmm. c'est des corps qui ne sont pas habillés et les gens ne sont même pas intégrés ñenn ñi pour leur corps. donc mu nekk ay yu bare maintenant nag mënu ma bañ a wax hôpitalu Ndioum. hôpital ñum dañuy noggatu ay contractuel foofu. maanaam am na ñeent ñoo xam ne xëy ni dañoo bokk simplement SUTSAS. Mm-hmm. ñu génne leen ci biir daal leen wax faute lourde daal ni suspendre seen sa seen seen salaire pendant. ba léegi presque ça fait 4 mois. Mhm. léegi nag ñooñu dañ leen war a delloo seen place. Mhm. sinon loolu tamit dana bokk ci. ci mhm. ci histoire yi. delloo Amadou Lamine Sano à la direction régionale de la santé de Matam. parce que loolu foofu la war a mun a dem. ñeneen ñi nga xam ne nag lijjanti wuñu seen mbir nañ ko lijjanti gouvernement bi xam na ministère de la santé xam na. en 30 secondes rek tey la journée bi nga xamante ne moom la ñu euh, jagleel euh, travail décent un mot. oui travail décent parce que liggéey rek moo tax nit ki am sa dignité mhm. nit ki bu liggéeyul du am dignité mhm. et on s'est toujours battu donc pour le travail décent mhm. et nous pensons que ku ci ci war a mën a jàpp du n'importe quel la nit ki war am mais liggéey bu nga xam ni dana ko delloo sa dignité c'est tout le sens maintenant du du concept donc travail décent d'accord Mballo distingué docteur honoris causa cérémonie prévue pour le octobre à l'université euh, merci defe naa ni bon la GIA bokk na ci supporter n'est-ce pas. Mm-hmm. bon mm-hmm. Sénégal moom la ñu honoré. c'est la GIA comme mm-hmm. boo ko daan dégg ay chef d'état rek lañ. waaw waaw pour ne qu'on me le meilleur leader syndical. africain contemporain. macha allah loolu defe naa ni mënu ma warul. bravo. macha allah rek laa mun a wax merci beaucoup. d'accord di ko déjee nag ñëpp ah. tout le Sénégal et à le Sénégal. tous le mérites hein mm-hmm. le mérites amplement le 28 en Côte d'Ivoire pour ça. Euh, waaw. d'accord ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw merci Safiatou Cissé merci aussi euh, sama tal bi Sow dama koy gis souvent rafetlu aussi dëggoom. ak moom mook yow yam en tout cas vous avez presque le même sigle. Mhm. bon bu fekkee dëgg am na vous ne portez pas de gants. Mhm. dafa am na solo bàjjen nag man. man xat yëpp xaw ma na xat nga tudd xaw <laughs> mhm. kër gi tamit d'accord ok merci ñu lay sant di lay gërëm di gërëm ki nga xamante ne tamit moo di Abdoulaye Diouf euh, je crois alors euh, bu euh, ànd gësëm nga xamante ne tamit jàpp na si invitation bi Ousmane Diouf Ousmane Diouf voilà nga xamante ne jàpp na si invitation bi ñu leen di sant di leen di gërëm éco entreprise di leen di jox dig daje beneen altine beneen euh, thème tamit si beneen invité ñu dem jëli ji euh, suñu rubrique sport dellu si waat si plateau bi.